asalaamaaleykum mbokk déglukat yi dal leen nag jàmm Balthazar Garzón di magistrat bu bàyyeekoo ci réewum Espagne mi ngi fii nga xam ne nag moom mooy ci Ndakaaru ngir teewee procès Hissène Habré cuglikaay bi di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne kooku de moom moo tax ba ñu teg loxo ancien dictateur chilien bi di Augusto Pinochet fële nga xam ne nag moom mooy ca Londres euh, ci atum 1998 moom nag daal di ne gis ne nii nga xam ne de moom la Hissène Habré di doxalee ci wàllu procès daal du dëgg du yoon ndaxte moom loo ko laaj du ci tontu tek ci dekkaaral bu métti la ci àndal la mu ca gis nag moom mooy ne daal dafa ñàkkal fayda ñi nga xam ne tey jii de ñoom ñoo loru ci ay loxoom wala boog ñi nga xam ne de ñoom la doon xoxatal tey jii nag bëgg ñu daal di leen jox dëgg nag ci li nga xam ne daal moom mooy ñaawteef gi nga xam ne moom la fa doon amal magistrat Garzon daal di ci yokk di xamle ne moom mi ngi rafetlu na lii nga xam ne moom mooy liggéey bu chambre africaine extraordinaire di amal nee na nag di jël ñi nga ne nag ñoom ñooy njiitu réew yi nga xam ne dañoo def ay ñaawteef di leen daal di jugé ci biir continent ba ñu bàyyeekoo nee na nag loolu de moom moo gën ñu leen di yóbbu ca cour pénal international moom moomu nag di magistrat espagnol bi daal dinay gis ne su fekkente ne nag dem nañu ba xool ba xam ne waa chambres africaines extraordinaires liggéey bi ñuy def mucc na ayib dina tax nag ba fu mu nekk ni moom dirigeant africain yu bëri def naka su dul noonu ñu bàyyi leen fii ci biir Afrique ngir war leen a mën a euh, juger moom moomu nag di magistrat bi daal dinay naqaru nag lu tax teguñu loxo ki nga xam ne de moom mooy ki jiite bi ndaxte moom ak ki nga xam ne de moom mooy Hissène Habré ñoom ñaar ñoo daan ànd di def seen i ñaawteef ay toppite indi nañu ko nag ci biir police bi tey ji sax autoglikaay yëpp di ci xëyee autoglikaay bi di réew mi quotidien moom mi ngi ñuy xamal ne Macky ci ndajeb conseil des ministres gën doon abal démb na di indi ay toppite ginnaaw nag ba mu dàqee ki nga xam ne de moom mooy Anna Semou Faye te bopp police nationale bi di réew mi quotidien sax ñoom lañ ca gis moom mooy ne Macky nit dàq cuulikaay bi jëla populaire ne Macky raxas na ba mu set wecc police nationale ndaxte nag gis nañu daal ne direction yu bëri moom daal dinañu fay indi ay coppite ci wàllu coppite yi ni mel sax cuulikaay bi jëla tribune mi ngi ñee xamal ne nag Mame Seydou Ndour ma nekkoon OCRTIS moom daal dinañu ko fay jëlee direction générale bu GMI ak tamit école police foofu tamit daal dinañu fay teg ñu bees tàq renseignement généraux yi tamit daal dinañuy changer seen patron cuulikaay bi enquête ne dafa mel ni kon ne Macky Sall ay nit yu bees nag la ñu daal di teg euh, ci bopp direction yi wante suñu natango yoo joli kay bi di le quotidien lañ moom mooy daal ne amul benn jigéen boo xam ne nag tey jii de tabb nañu la nag loolu moom joli kay bi di le quotidien ma ngi koy ñaawlu li am ba des daal ñu ngi ñuy xamal ci biir joli kay bi di l'observateur ne tey jii nag ci suba la ñu fas yéene nag dalal kii di Omar Mal mu fas yéene nag nekk ki jiite euh, police nationale joli kay bi di l'observateur ne kooku nga xam ne nag moom Oumar Mal wax naa mën a def nag kémta lay kàttanam ngir fexe nag ba police liggéey bi nga xam ne nag moom la ñuy xaar ci bi nga xam ne nag moom la askan bi di xaar ci moom ñu wax ko cee mën a gis ci biir culikay bi di libération suñu naataango yi ñu ngi ñuy yokk di ñu xamal ne Abdoulaye Niang moom yi nga xam ne nag jëlee woon nañu ko ci bopp police nationale ginnaaw ba mu amee nag mbirum drogue boo xam ne daal moom moo ko lëmbe woon moom de dafa mel ni nag ne Macky Sall dafa bëgg a wane ne lañ ko doon tuumaal yëpp dara amu nekk nag inspecteur général de police moom sax ak Oumar Mal la ñu daal di tabbandoo tuulekaay bi di libération di ci yokk di xamal ne moom mu di Abdoulaye Niang suñu may tuulee nag ci fan yu ñu dëgmal dinañ ko dénk moom it ab poste euh, ci biir euh, police bi wàllu lamb nag la ñu koy jeexale ak tuulekaay bi di suñu lamb ñu ngi ñuy xamal ne fu mu nekk ni moom ñi nga xam ne dañoom ñooy VIP yi te ñu toll nag ci juróom benn suñu may tuulee de du ñëpp nag ñoom ñoo ci nar a am combat ndax ci tuulekaay bi di la mu moom mooy daal ne promoteur yi ñoom daal dina ñuy fësal wax nag ne koppar amul fi ci biir réew mi rax ci dolli ñoom du ñu mën a tëggal VIP yëpp ay combat loolu nag moom moo tax ba cuglikaay bi di sunu lamb di laajte ci diggante B52 Eumeu Balla Modou Lo Gris ak Yékini kan moo ci nar a am combat li am ba des daal ñoom li ñu gëm waa cuglikaay bi di sunu lamb moom mooy ne ni ak Gris Bordeaux ñaar ñooñu moom mun nañu wax ne dinañu leen tëggal ay combat fii nga xam ne nag moom mooy ci Bombardier ak Eumeu Sène ñoom it mun nañu am chance daal di am combat wante nag ba Gaye numéro 2 ak Modou Lo ñooñu de suñu maytuwulee dinañu xaar ba beneen saison bi nga xam ne moom la ñu dëgmal lii ma nekkoon mbox di lukat yi li gën a fës ci biir autorité yi ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jàmm